asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum àdduna ñu ngi nuyu ñëpp képp ku nekk fa nga nekk ñu ngi lay nuyu baax a baax di la jox sa yënguwaay bu baax a baax a baax ah, comme ni ko Germaine secrétaire adjointe waxee ak euh, Cheikh Omar Diaw le porte-parole ñoom def na li nga xamante ni mooy présentation bi euh, man ci li may ñëw damay ñëw directement ci li nga xamante ni. moo tax a jóg UDAG UDAG comme niñ ko waxee mu nekk association boo xamante ni da yëngu ci wàllu social développement ak solidarité ñu koy wax union pour le développement des artistes comédiens mu nekk association boo xamante ni artistes yi ci jëmmi boppam ñoom ñoo ko taxawal ngir jàppalante ci seen biir moo tax ñu ne solidarité ku nekk di cotiser chaque mois parce que ndimbal da cay fekk loxo borom ku nekk xam na ni théâtre yàgg na ci Sénégal c'est avant la naissance de Jésus-Christ le théâtre judd mu nekk quatrième art ñëw ci Sénégal yàgg fi loolu suñuy papa jaar fi suñuy maam jaar fi ñu gis situation yi daan dund nga xamante ni ku ci mës feebar dañuy am problème di la wasaare ci réseaux sociaux yi di la ketal di ñaanal mel ni ku la yow ñu ne ça c'est fii loolu dafa war a jeex te UDAP moom mooy li koy jeexal ci réew ñu ne UDAP dafay yëngu ci wàllu social ba tey muy comédien bu ci nekk war nga am wér-gu-yaram ñu ne dañuy liggéey ci mutuelle de santé boo xamante ni dafa am mutuelle de santé bu ñu war a lëkkalul ba nga xamante ni képp koo xamante ni feebar na ñu mën a faju ñu faj ko ci mu faj boppam su demee hôpital bu waree fay un million deux cent mille lay fay ndax vingt pour cent lay fay quatre vingt pour cent yëpp mutuelle bi moo koy fay ñu ne buñ jugee ci loolu ñu yëngu ci wàllu développement développement bi ñu ngi ci jiitu ci li nga xamante ni ñu ngi ci jëkk a def li nga xamante ni mooy ay formation ci jigéen ñi muy jigéenu bidak yi muy femme comédienne yi ñu defal leen ay formation ci wàllu transformation muy eau de javel savon liquide ak euh, jus ak yeneen ak yeneen transformation légumes yeneen ak yeneen pour bu ñu joué jul ñu mën a am lu ñu def ñu liggéey pour mën a def seen poste parce que du chaque jour ngay mën a dem sur scène wala chaque jour ngay am film boo mën a kon li ñuy yëngu ci côté boobu ci wàllu développement mooy entrepreneuriat culturel beneen bi aussi mooy kenn ku ci nekk am sa entreprise bopp ba mën a liggéey ba nga xamante ni tey soo demoo répétition demoo jouer du film demoo jouer du spectacle am nga leneen loo jàpp loo xamante ni tey di nga préparer sa ëllëg ñu ne développement ba tey nañ organiser ay journée journée yoo xam ne ay événement lay nekk UDAP dugg ci événement événementiel pour le développement développement bi biñ ko waxee ñu ànd ci ak ki nga xamante ni mooy sëñ Souleymane Sow muy président d'honneur IDAC nekk fële ca Allemagne moo tax teewul ñu ànd ceeg moom mu ciy liggéey liggéey bu am solo ah ci biir développement bi aussi ñu ànd ci ak comédiens yi nga xamante ni majeure partie ce sont des jeunes nekk fii ci Sénégal Euh, di yëngu ci wàllu théâtre ba pare fës ci lool ba pare di ci def lu ama am solo bi ñu taxawalee UDAC yàlla dogal ñu ànd ceeg ki nga xam ni aussi mooy suñu ambassadeur ñu koy wax Keba Seck muy ambassadeur UDAC parce que moom moo njëkk a jël xaalisam dugal ko ci biir keesu UDAC ci jour assemblée générale booba benn membre xaalisam duggagul ci UDAC ba tey jamono di dem muy jëlaat xaalisam di ko ci dugal kon li nga xamante ni moom lañuy ñuy lancé tey di xamal waa Sénégal que ni jot na comédien yëpp am dëkkuwaay jot na comédien yëpp am kër gu ñu dëkk ndax luyaas bi metti na te kenn ku ci nekk ñu ci bari ñu ngi am ay jafe-jafe huissier di leen génne walla ñuy dem di taxaw tribunal dafa ñaaw ci koo xamante ni liggéeyam mooy bégal askan wi ci koo xamante ni liggéeyam mooy bëgg askan bi nekk ci jàmm ñu leen di jox ay message yoo xamante ni mën nañ di ko dundee di leen sensibiliser di leen jox ay mbégte nga gis ku nekk boo liggéeyee sa bureau sax boo wàccee toog ak sa jabar série ngay seetaan wala sketch ba nga xamante ni tey dangay nekk ci jàmm ñooñu nag kan moo leen di bégal ñan ñoo leen war a bégal ñu xaar ci état ba sonn ay at état réagir ñu xaar ci population sénégalaise ba tàyyi ndax li ñu jàppee rek mooy ñoo xamante ni dañoo war a ñëw bégal leen rek après ñu dem bu ñu wootee sax grand théâtre pour def théâtre da gis population bi tuuti ñooy ñëw soutenir la te koo ci dajal mën na sa waay yaay sama fans pourquoi et que dëkk boo munti dem fii ci Afrique wala ci Europe comédiens yi am na fuñ leen teg ñu ñii di dem ci ay festival xam nañ bu baax li ñuy wax dëkk yu bari boo fa demee am na cité comédien yi pourquoi pas cité comédien am fii ci Sénégal ñu ne ñun waa UDAG nag bay ci say oom woo nañ état ndax je me rappelle très bien année bii passée en mois de janvier bind nañ audience au ministère de la culture pour mu recevoir UDAG aussi bind nañ ci bërëb yu bari ci yoo xamante ni ñoom ñoo yor réew mi ngir ñu recevoir ñu ñu tegal leen suñuy projet ba mën a euh, accomplir projet yooyu ba mën ko finaliser mais actuellement euh, ba tey amuñu benn réaction ñu ne ñun nañ jugal suñu bopp ndax kat bay ci say oom balaa ñu lay dimbali yaay njëkk a dimbali sa bopp te mbooloo mooy doole pourquoi ma ni mbooloo mooy doole boo xoolee association yi nekk ci Sénégal wala kuréel yi nekk ci Sénégal ëpp ci théâtre kat bariwul théâtre kat yi ñoo ëpp ci Sénégal ku ko weddi demal ci troupe de théâtre yi ku dem Sénégal fii mu départ mu départ Dakar jóge fi dem ba Fongolé bi foo dem am na troupe de théâtre troupe de théâtre boo dem am na vingt personnes wala trente personnes wala quarante personnes waxatuma yeneen association yi fi nekk ma noté leen comme ku mel ni ARCOT ku mel ni ITS ku mel ni Thiada ku mel ni beneen association ak beneen ñaata personne ñaata membre comédien ñoo fa nekk léegi ñooñu tey bu fekkoon defuñu woon théâtre lan la ñuy dem defi ñenn ñi mën nañoo bon ñenn ñi dem di agressé ñenn ñi dugg ci gaal gi dem parce que loolu la ñuy bañ ba tax na ku nekk yaa ngi jéem a créer pour xëcc nit ñi ñu dugg ci métier théâtre mais nag ku ci dugg di gis sa papa yi wala sa maam yi wala sa mag yi ci jaar am situation bu ñu mujjee da ngay mujj ragal ñu ne kon nañ lañ jug taxaw boole suñuy tànk boole suñuy loxo doon wenn say créer association bi muy UDAC muy union pour le développement des artistes comédiens bu ñu waxee union rek bàyyiwuñu kenn tey bépp membre boo xamante ni yaa ngi UDAC yaa ngi ci beneen association yoo xamante ni association de théâtre la te yaa ngi biir UDAC kon ñu tëjuñu suñuy porte porte bi dafa ubbeeku ñun li ñuy liggéey ak li ñuy lijjanti si pour tous les comédiens sénégalais fan jëlee am na benn autorité bu ñu recevoir foog naa wax naa ko fa nee naa ko quota bi ñuy ut ci ay terrain wala ay kër suñ ko jotee association yooyu yëpp membre UDAG yi bien vrai ñoom ñooy ñi nga xamante ni ñooy priorité mais yeneen association yëpp kenn ku ci nekk UDAG dina la jox sa quota ne la lii kon li ñu tax a jóg mooy un comédien un bu ci nekk dafa war a am soirée bii nga xamante ni ci lañ jëm ma ñëw ci muy le 10 février ñu ànd ceeg l'ambassadeur Keba Seck mu nekk chef mu nekk soirée boo xamante ni c'est musical mais c'est théâtralisé dafay am théâtre dafay am musique te jour ba dina gis lu doy waar muy soirée boo xamante ni dina am mise en scène boo xamante ni kenn mësu koo gis ci Sénégal soirée bi nag le 10 février lañ ko jàpp concept soirée lu ko waral mooy ut ay fonds pour ñu mën a créer cité comédien yooyu moo tax ñu ne un comédien un toit noonu la soirée bi tudd may wax ni ñu ngi ci woo ñëpp képp kuy autorité te ñu suñu bunt moo xam pouvoir nga bokk moo xam opposition ak foo munti bokk ñun nous sommes indépendants parce que kenn ku ci nekk am na fu sa xol nekk moo xam ci wàllu politique la wala ci leneen ak leneen mais li may wax mooy dañuy lancer appel di wax surtout les autorités sénégalaises ñu wax leen ne association bii li ñuy bañ mooy kenn di fëgg ci ay bureau di ñaan walla nit am problème ñëw di ñaan kon jàppale leen war na jàppale leen jot na te nag ñu ngi jàppale ay yeneen nit yoo xamante ni tey ay nit kese lan sax association ndax dégg nañ ba tàyyi président de la république Macky Sall wala keneen ak keneen euh, ci autorité yi wala ci gouvernement bi ñu ne diw jox nañ ko tant de hectares wala diw jox nañ ko temps de kër wala dégg nañ fi ay cent mille logements est-ce que comédiens yi bénéficié wu nañ amul ah kon nag jot na ñun ñu jóg xar suñu temps tubay tànk tubay euh, jigéen ñi takkaat seeni sër ñu góorgóorlu bu baax ci liggéey bi ba le 10 février bii di ñëw ñu ne pare nan ah amagum nan actuellement 100 millions wala 200 millions nan fexe def coopérative ñu am suñuy kër yoo xamante ni ñun ñoo koy defaral suñu bopp ku ñu ci fekk si nag bëgg na muy sponsor muy partenaire muy muy muy bonne volonté muy autorité moo xam euh, ak ONG yi képp koo xam ne ak association yi bàyyiwuñ kenn képp ñëpp lañ bëgg ñu fekk si ñu ci ndax ñu mën a atteindre suñu objectif objectif bi daal en grosso modo mooy un comédien un toit ñuy remercier bu baax la présence de Keba Seck euh, ci conférence de presse bi aussi ak lim ñu yombalee le 10 février bi euh, fii ci grand théâtre incha allahu rabbi le 10 février ñu fësee na cee ànd ak moom def ci soirée bu am am solo di remercier aussi la presse di leen di leen jéggalu bu baax a baax a baax ci ni ñu tardé mais du ci ñun suñu ambassadeur moo xam <laughs> naa daa voyagé ba pare doog a ñëw mais ñu ngi leen di remercier bu baax di leen masawu coono di wax ni euh, culture mënul dem sans presse waaye presse aussi mënul dem sans culture on est ensemble parce que ñun chaque jour ni mu woon téléphone ne ñu dañoo bëgg a interview te bu boobaa aussi dañ la koy accepter kon tamit yéen ñi ngi remercier bu baax li ngeen ñu accepter ñëw teew ci suñu conférence de presse yàlla na yàlla fay merci ma jox le secrétaire général Ousseynou Diop ma sànni ci ay kàddu. asalaamaaleykum. Ah, ah, waaw man de maa ngi dégg lool sama yaram sax dama xaw ma dégloo discours di nuyu ñëpp nag ñi nga xam ne ñoom euh, que lii waroon na am depuis ci nag solo ci ñiy war a jàpp ñiy war a jàppale mm-hmm. àdduna escalier la mm-hmm. jàppalante mënta ñàkk parce que on n'est pas là nga am war maa a am war maa war maa mën a jàppale jàppale moom loolu di ma seetaan di ma xool te nga mun ko wala boo ngay xaar mu ñëw ci yow te nga war ko mën def te yàlla tax un comédien un toit ba mu waree am dafa yàgg suñu borom yal na yàlla dogal eh, li ngeen ko mébét nii sumb ko man xam naa ci lu bari ndax Souleymane de sama xarit loolu sama mag ma ma xam aussi li mu leen yéene Souleymane talul dara lu yéene xam ngeen ko mais dama koy confirmer talul dara lu yéene li yéen tuur boppam moom mooy yéen yéen yéen yéen dañu ko ñor. wax dëgg yàlla ma xam te lu bari nag wax dëgg yàlla tey nag eh, yéen a ngi sites yi maa ngi maa ngi maa ngi la presse donc bu nekkee këram di ree ba takkaajoo ak fa mu ko fekkoon wala bu nekk ci hôpital bi nii am ku mën a doon ko suñu yaay Ramatoulaye Ramatoulaye ak ñeen ñi ma mu xool xolam set mu féex loolu amul prix ba tax na man travers ma voix aussi damay woo autorité bi gouvernement bi moo xam ku mën a gouverner il faut ñu bàyyi xel comédien yi handicapé yi ak ñeneen ak ñeneen yaa ngi wax autorité rek mais kii jaay kii jaay gerte gerte kii jaay beñe ak ku mën a doon dafa war bàyyi xel le bis bii ci bu fekkee xam na wala déglu na sens bi tax ñu jóg location yi yaa ko wax lu métti xam naa ci dara ñu ne la baal ci ma koy wax parce que am naa ci mille cas mhm. yoo xam ne huissier moo tax mhm. huissier moo moo taxaw mhm. ñu xam fu ñu léegi imaginer yéen su ngeen théâtre bi woon comme les footballeurs du monde ñoom bu defoon football kon sax euh, ñooy def kon semence bi da ngeen a bëri laa du ma wax diggu naa dinaa bàyyiwaat xel leneen lu ci lu ma ci man waaye su ma ko mënoon tey tey tey tey man may joxe hectare yooyu